mbokk yi nañu déglu bu baax xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day wax ci xadis bu wér boo xam ne ibnu maajah génne na ko tirmidi génne na ko génne na ko abu daawud génne ak ñeneen rahmatullah alayhim ci boroom xam-xam xadis xadis bu wér di wax waxu aljanna yàlla nañ ci yàlla boole waaye di wax waxu safara yàlla nañ ci yàlla musal nee na ñett a ngi nii benn ñaar ñaar ñëpp safara lañ jëm benn moo ci dem aljanna xadis bi subhanallah nee na mu ngi aju ci àttekat yi mu ngi aju ci juge yi mu ngi aju ci homme de loi yi mu ngi aju ci homme de tenue yi mu ngi aju ci procureur mu ngi aju ci njiit ci président mu ngi aju ci koo xam ne am na kàddu di àtte déglu leen bu baax yow mii di procureur yow mii di juge yow mii di àtte ñu jox la dossier nga tiim ko xam ni bés dina ñëw di nga tëdd sa bàmmeel yow rek di nga dajeeg sa borom yow rek mu àtte la nga war a jaar ci kaw u siraat safara nekk ci suuf boo juboon ci sa àtte sa décision nga xooloon sa digganteeg sa borom ak sa conscience nga àtte ginnaaw ba nga xamee dëgg xamal ni aljanna nga jëm noo rek safara nga jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne mu ne alquda thalatha nee na àttekat yi ñett lañu nee na ñaar ñi ithnaani fi nnaar wa waaxid fi ljanna waaxid fil janna ñaar ñëpp safara lañ jëm yàlla nañ ci yàlla musal kenn mooy dem aljanna mu ne rajulun arafa alxaqa fa qada bihi fa huwa fil janna juge boo xam ne procureur boo xam ne homme de tenue homme de loi président kuy joxe décision koo xam ne mu ngeeg dossier litige di war a décider war a signer wara a acter war a wax war jox avis juge procureur décision bu ñëw nga war a acter nee na nga gis dëgg xool sa diggante ak sa borom ak sa conscience nga décider dëgg wax dëgg juger dëgg nee na yow aljanna nga jëm allahu akbar kon lenn jaru ko fi aljanna xalaatal bés penc xalaatal nee na kii juge boo xam ne àtte na ci dëgg ginnaaw ba ko xamee àtte dëgg kii aljanna la jëm allahu akbar j'espère que ci ñooñu ngay bokk nee na waaye wa rajulun arafa alxaqa fa lam yaqdi bihi subhaanallah wa jaara fi lxukm koo xam ne gis na dossier gis ni lii mooy dëgg mu daal di ciy sëgg gis ni lii caaxaan la lii du dëgg mu jël lu dul dëgg li daal di koy atte jox dëgg koo xamante ni amul dëgg ndax lan mooy que ni lu ñu ko neexal ndax pouvoir éphémère subhaanallah ndax lan mooy que ni poñitu àdduna mu gis dëgg nëbb dëgg àtte caaxaan yonent bi sansam ne na fa huwa fi naar yow moomu safara nga jëm kon yow mi di procureur yow mi di juge yow mi di àtte déglul xadis bi ku gis dëgg nëbb dëgg àtte caaxaan yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne du waxantu nee na safar nga jëm subhanallah subhanallah xalaatal nga tëdd sa kër sa néeg yow rek sa conscience nar a tëddi sa bàmmeel yow rek nee na ñetteel bi dem safara ci ñaar ñooñu mu ne mooy wa rajulun lam yaarifil xaq xamul dëgg day tatone rek nekk ci ay caaxan ci ay passion subhanallah nee na mu àtte ci loo xamante ni amu ci xam-xam nee na kooku noonu subhanallah àtte lu dul dëgg kooku safara la jëm kon mbokk yi xadis bi nañ ci méditer nañ ci méditer aljanna mbir mi alqadiya l'affaire en fait concerne le paradis ou l'enfer yow nag yaa xam foo ci tànn sa digganteeg sa borom waaye ak sa conscience tranquille yal na yàlla dugal ñu aljanna musul ñu ci sa أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا